asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara fas yéene yëkkati ay kàddu jëme ko ci jëmm joo xamante ni ngunaa ba kuyul mbaam la di mbaam mu kàdd yàlla dogal nag saa bu mbaam weqee nguul wi nu yor nu génne ko te jii nag ngunaa ba kuyul mbaam lii wequl dafa waŋiitu moo tax yat wi du ko dal benn yoon rek li ma tiitre nga xamante ni ku ko xool ma wax ni Cheikh Omar Diagne franc bu bon bi fenkat bu mag bi awma sañ-sañu jóg rekk di dal ci kaw nit te awma fu ma ko teg waaye li waral may def vidéo bi ci laa bëgg a ñëw ndax jógoon na fi dal ci kaw Cheikh de Mourid Sadikh maam Issa Gueye sëñ Moustapha Mohamed Diop Mamadou Moustapha Diop Paris waaye dootu ko dolli ndax lu muy jaay lu ne ñoña ko ko ëppalé muy xam-xam di ab yar ak lu man di doon mouride yi am nañu ab yar waaye khassida gogu ñuy wax saadatul muridin fi am day khairul mursalin te ñu gën koo miin ci rahiya serigne touba dafa am wax ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dafa bolé won ak ak akuk dëgër baslun wa ba'sun liman lanu wa man jaru murid itam dañoo boole ak nooy akuk dëgër soo ñëwee ak jàmm fonk seen kilifa ñu won la nooy gi waaye bu fekkente ni dangaa ñëw bëgg fontoo seen kilifa ñu wan la dëgër gi euh, li tax ma fas yéene yëkkati kàddu yi damay jéggulu ci biral gi ma leen koy biral ngeen koy dégg loola moo di lan mooy ki ñu wax Cheikh Omar jaañ dafa saaga murit yépp wax ci Serigne tuuba loo xamante ni moo ko njëkk a wax ci senegal doon naa feq boo xamante ni moo gën a doon am naa feq Abdullah ibnu Hubay lu ko waral mooy dafa am ñuy làqatu ci ay faux compte ay compte fictif ci Facebook bi lu ne ñu di ko yekk yoon waaye ñooñu dañuy soppi seeni tur kenn xamu leen moom mu ni damay am fitu ni dajj ñëpp di ma gis may wax waaye ba muy ne day tontu murit cedd murit saadix dafa am ay kàddu yu neex yu mu jóg yëkkati ko wax ko ci Serigne Touba fierté la pour euh, euh, euh, jullit yi Euh, je n'ai rien contre sëñ Touba ñii wax laay waxal ndekete loola bi muy wax ñu jàkkaarloo ak moom loola lay wax ngir ñu di ko dégg waaye ña doon làqatu ca seeni compte ya Cheikh Omar Diagne leen raw Cheikh Omar Diagne lan la def ba mu waxee loolu nga xam ni loolu la murid yi dégg mu dugg ci seen nopp dafa dem bind la mu bind nag maa ngi jéggalu ci leeral gi waaye loolu moo tax ma def vidéo bi Cheikh Omar Diagne dafa bind ci ab commentaire wax ni murid yi ay con lañu génnewu ca kenn nee na murid yi ay con lañu te ay con nag boo seqeek ñoom booye boo nga xaar lu ne ci ay tojaanga nee na murid yi ay con lañu ndax cale yam déedéet mu ni nit ku gëm sab xol yàlla nga ko war a jox mu ngi ci jublu murit yi waaye waroo koo jox koo xamante ni bii sunu boroom a ko sàkk mu ni kon sunuy xol yàlla lañ ko war a jox waaye waruñu ko jox Serigne Touba ndax nee na Serigne Touba càkkatéefug sunu borom la te mu ni càkkutéef googu nga kooku nga xamante ni moom la ñu jox seeni xol muy ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba waxul ni bokkul ci góor yàlla yi waaye la mu wax moo nee na Serigne Touba bokkul ci góor yàlla yu baax yi nee na jigewu leen sax da leen lool loolu moo tax ma ni nag kii faw ma wax ak moom ndax yoonu murit ni ñu toll bu ñu doon woon ay jullit itam kenn war leen a traité de con Serigne Touba ku ñimee taxaw ci Sénégal wax ni Serigne Touba bokkul ci góor yàlla waaye daf leen a séenul sax loolu mendum Omar Diagne Cheikh Omar Diagne la xaw ma moo sañ loolu loolu nag moo tax ma jóg bëgg wax ak moom ci jëfi lâche yi mu def buy wax wax lu neex ndax bañ ko ko duma buy bind dinu saaga loolu jikkoy jaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la Cheikh Omar Diagne jaam la boo xamante ni ca sunu maam Adama ak Awa ba léegi musta nguyaay musta am péexte jaam la bu musta libre ndax nit ki bu fekkee as nga looy wax danga koy assumer ñu xam ni yaa ko wax waaye booy wax wax lu neex booy bind bind safaan ba loolu moo tax maa ngi jégglu ci leeral gi ma ko leeral waaye dama bëgg képp ku ko séenati muy wax nga mën a waat ni ab naafeq nga ne boo xamante ni moo gën a doon ab naafeq Abdullah ibn Hubay waaye dolli ca ni ab fenkat a nga ne boo xamante ni bii Musaylamatal kazaab moo ko dàq fen Cheikh Omar Diagne tey bu séenoon xarum bali bali ni e kooyum bali bali bi ak rëy bu nit ñi geesoo mbaam la ñuy gis ngunaa ba kuuyul mbaam ni moom la ñuy gis waaye duñ gis am xar ndax moom ab fenkat la ndax fenkat ca la yem déedéet ab jaxasakat la waaye li ma wax ni ab franc-maçon la man awma sañ-sañu jóg rek ni diw ab franc-maçon la moom moo prouvé ni moom ab franc-maçon la lu tax ba muy tontu ceddo murit saadix ñoom moo ni mbir bu fekkee bokkoo ca amoo ca sañ-sañ mënoo caa wax ndax xamoo ca dara te moom fu mu toll yi àddina yi diw franc-maçon la diw franc-maçon la diw franc-maçon la man aw ma fitu taxaw ni diw ab franc-maçon la moom mi ma ni franc-maçon la moo ko prouvé moo ko wax ndax nee na loo bokkul waroo caa wax ndax xamoo ca dara kon moom li mu nu war a wax mooy ban loge maçonnique la bokk ndax ku jog muni ab franc-maçon la kon bokk gam ci bokk bokk ak ñeko nyilek doon ndab lu ñuy lek motax mu muni xam ñi mu bokkal li lolu motax tax ab franc-maçon la du affirmation gratuite yëguma rek gis na kuy def ben commentaire nan ma na nga wax lutax nga ni franc-maçon la bu mu doon waxi mer ay waxam la wax moy wax ci mbirum werde ni ci addu mouride sar ñom waru len ci wax ndax bokku len ci ku ci bokul sa ñoko joxe nit ki lu mu bokul munu ko xam munu ci jangale kon mom mi nga xamanteni ku jog mu franc maçon nga def di franc maçon fofu la sukkandiku bani mom franc maçon bu bon la ndax ña doon ay franc maçon dañu nopi waye yow bokk ci mbir mi ba pare fo tollu di dénoncer ñing ko bokkal lolu motax tax franc maçon bu bon la jaxasekat la fenkat la moo raw Musaylamatal Kazzab lu tax dafa fen fen woo xamante ni ma di leen xamal ni baatu fen bii may jëfandikoo nag ba muy tontu ceddo murid saadix ñoom am na ku ko envoyé message ni ko fen aw saaga la mu ni ko déedéet fen du aw saaga moom mu rafetal baatu fen ndax la mu ca géeju lool bu doonte ni fen dañ cay am ay diplôme ma ni docteur la en phénologie kat ci la man kon baat bobu mu wax ni ayut mom lay jëfëndiko lu tax ma ni ab la Cheikh Omar Diagne dafa kat ci kat ci wu reuy wo xamni dafa dem ba ci muni mu ni ah man kat lima def ëpp na ndax ma ngi bëgg war boole war gilem ak war mbam te loolu taat wu xotteeku moko ca fekk bo bëggee war gilem ni mu sutee mbam bëgg war gilem gi waraale mbam mi saw taatay ko lolu mo dal Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne fan nga mas dégg mourid bu taxaw ni gor yalla bu mak ba don jamarlo ak feder di El Hadji Omar futi Tall yalla nañ ko sunu borom fayal fo mas a dégg ab mourid ni la dañ ko convoquer won bureau ba ca Ndar El Hadji Ibrahima Niass fo dégg ab murit bu ne la dañ koo convoqué woon ci bureau ba ca Ndar li tax ma ni da nga bëgg a boole war gileem ak war mbaab El Hadji Omar Foutiyou Tall yal na nu ko sunu borom fayal ma nga réer dans les falaises de Bandiagara au mois de février 1864 ñu teg ca ñaar fukki at ak juróom-benn Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass feeñ en 1900 kon El Omar làqu na ba ñu teg ca ñaar fukki at ak juróom-benn. cheikhul islam cheikh Ibrahima Niass di doog a feeñ ba nga ko waxee nag mu tàmbalee tas nga xam ni fen nga fen wu rëy la nga ca jublu mooy bëgg boole tarixa tijaan yi ak tarixa murit bëgg a boole waa kër Serigne Abdoulaye ñas ak tarixa murit waaye loolu munoo ko démb rek taalibé yi Serigne Touba yi kër ga ñu jënd deux cent dix million ci seen sénat si ca États-Unis

di capitalu Allemagne xalif général de Mourides bi xalif général de Tidiane tàmbalee waate liggéeyu jumaa yi Tiwaawoon ji gis nañu lam ca def màggalu Tuubaa gi gis nañu la xalif général de Tidiane li mu yónnee xalif général de Mourides kon tuut nga lool ci jéem a boole tarixa yi nga wax ni murit yi dañoo jël seenub xol jox ko mbindeefum yàlla moo xamante ni bokkul ca mbindeef ya gën Sëriñ Tuubaa nga ci jublu espèce d'imbécile va nu pied yow koo jox sa xol Cheikh Omar Diagne bu nu la xamut itam danoo xam ñu la xam ñu la miin nun danoo jël sunu xol yi jëbbal ko Serigne Touba yow nga jël sa xol en tant que ngóomum xaj muy fefelan jox ko jigen ñi non sëñ Touba lan jox sunu xol yow sa xol jigéen ñi nga ko jox lo am ñu lek ko kon bo waxé ni mouride yi dañoo jël seen xol jox ko mbindeefum yalla mom bokul ci mbindeef ya gën xam nga ni wax nga lu ñaaw te loolu dang ko bind waye bu ni dang ko wax ñu dégg ko fo man di nekk danañu la fa fekk def la lu bon man nak damay interpeller khodamul khadim ndax man mbay Gueye mënuma jog ni damay porter plainte Cheikh Omar Diagne nun nun yal murid lañu doon ban murid mo fi jog di wax lu dul noonu ci tarixam jàmbur wax ju garaawe nii ban murit moo fi jaga eh, eh, eh, sañ jóg ni mu ni tijaan yi dañoo jox seen xol koo xamante ni bii bokkul ca ñu gën wala dañu dañoo jox seen xol ci xaadir ku bokkul ci ku kan moo ko ñime benn murit ñimewu ko kon Cheikh Oumar Diagne waxuma ak taraxi tarixa tijaniyya déedéet yow laay waxal parce que bokkoo ci yow doo nituk dara sàmba njorodaay nga taxawaalu kat bu jëmul fenn nga yow ton mooy lan mooy danga am crise de personalité yow sant nga yàlla ci ñi créé Facebook ndax crise de personalité moom nga am bëgg siiw bëgg aw tour moo tax ku jóg nga ni ab franc-maçon la fankat bu mag bi nga doon tarixe yi nga bëgg a boole du sot sotti naafeq gi ma wax ni naafeq nga itam booy wax ci murid yi lu ñuy dégg bërki démboo nga fi wax ci Serigne Mountakha murit yi di daanuy jël loolu itam damay wax murit yi ni leen danu leen tey Serigne Touba kenn dafa munta wax ci moom lu baax lu ko jomb kon nan moytu ku jóg ngir di neexal comme Cheikh Omar jaañ mii ni day wax lu neex ci yoon wi nu jóg di daanu mel ni li mu wax dafa jomb sëriñ bi tagg bi mu tagg sëriñ bi daf koo jomb sëriñ Moussa Ka tagg sëriñ bi sëñ Mbay Jaxate tagg ko sëñ Mor Kayre mu mel ni ku bokkul ci yoon wi boo waxee da day day rëy ci nun ba fenn fu nekk nu yóbbu ko fa ñooñu doon tagg sëriñ bi li ñu ko wax keneen du ko ko wax kon nag ku waxati ci sëriñ bi lu baax nan xam ni wax na lu baax waaye seenul fa sëriñ bi egg ci mbaax sëriñ Touba lu waay wax ci moom ci mbaax doyut munoo yegg fa mu yegg ci ak mbaax kon nanu bàyyi loolu sëñ Samba Jaara Mbay li ma woy sëriñ Touba kon vent du pied boo xamante ni da nga naan eh naa wax murit yi lu neex waaye bu may bind naa leen xas muy Cheikh Omar Diagne loolu dañ cee war a bàyyi xel sëriñ Touba kenn munta wax ci moom lu bax ba egg fa mbaxuk Serigne Touba yam kon loolu dañ ci wara bayyi xel bayyi rek ku jóg wax lu neex mu melni dafa jomb Serigne bi ñu nan ak sa ku nekk di commentaire alors que buy bind dem bind li mu bind ndax ba senegal di senegal ba tay Cheikh Omar Diagne mo ñëmé wax li mu wax Serigne Touba ndax mom ma ngay wax ni professeur la man ay titre ñoruma waaye ab tooñkat la ndax li ma leen wax Cheikh Omar Diagne paramètres yi ñuy nattee góor yàlla yi xam nga ni boo dee sëriñ bi bokkul ci ñi gën ci góor yàlla yi jigéewu leen sax xam nga ni da ngay fen yow yaa mën a fen waxuma waxi baatin waxi saay rek lay wax Serigne Touba nga xool dëkkam bi xool màggalam gi xool jumaam yii duma wax jumaam ji xool jumaam yi bëgg koo génne ci góor yàlla yi waaye loolu nun ay ree la nuy def dama bëgg a wax murit ni rek kan mooy Cheikh Omar Diagne te jóg ci moom nag dafa jot ndax juddu bërki démb fa nga wax ni fa nga bokk te gëm naa ni bokkoo ca sax ñuy rafetante lool ci diggante tarixa yi yow nga jóg wax loo xamante ni bii kenn mësu koo wax dafa jot nag ñu jóg wax ak Cheikh Oumar Diagne ñaataa nekk ci biir kaso bi ñoo xamante ni bii le président de la république la offensé le président de la république ab institution la offense à un chef de l'état délit la alors offense à Cheikh Ahmadou Bamba moom du délit offense au mouridisme du délit yéen ñi nga xamante ni bii yéen a yor xudaamul qadim jóg leen ci saay-saay bu mag wii di Cheikh Omar Diagne ndax lii de bu ko bàyyee mu jàll ëllëg dana wax lu raw lii ndax kenn mus sa dégg ñi dul ay jullit sax di wax ci Serigne Touba lu mel ni lii ko Cheikh Omar Diagne wax Paul Marty jaar na fi ñu bari jaar nañ fi waaye kenn ku ci amoon fitu wax lii Cheikh Omar Diagne wax amut loolu nag noo ko ko may ndax tey su fekkonte ni buy génn day geesu defe ni muritan ci wetam ngir toj lu bonam kon du ko wax wootewuma ci violence déedéet waaye nag murit yi ni ñu toll ci Sénégal nga taxaw ni murit yépp ay kon lañu te booy wax ak ki kon kii nawloowunu bu fekkente ni moom ji muy wax yépp jàppewul murit yi lu may ay con bani ay con nag booy wax ak ñoom lu ne mën nga ko cee dégg commentaire bi boo xoolee vidéo bi miniature bi commentaire am kamu doon waxal lamu bind moo ci nekk kon nag ma ni trop c'est trop te yow day Cheikh Omar Diagne li ñuy wax bakk nga njàkk bàkk nga njàkk ma wax ni bu ma kenn ni Serigne Touba kenn du ko xeexal kenn du ko xolool ku mu jaral lu xeex a yaa xam man daf ma jaral sama bakkan ndax sëriñ tuuba ba muy liggéeyal sunu borom lii nuy añe tey daf ko jaraloon bakkanam kere ba muy ni deram ba ci géej gi xamul woon ni bu wàccee du suux dafa xam ni lu mu war a def la mu def ko ñaar téeméeri nattu ak juróom ñetti fukki nattu ak juróom yiñ ko nattu natt bu nekk jël na bakkan kon ba muy liggéeyal yàlla daf ko jaraloon bakkanam kon noonu bu fekkente ni dañuy topp Serigne Touba ñu di ko ŋàññi te jaraloon suñu bakkan kon tekkiwunu dara duñuy murit il est temps pour ñu jóg bu dee dafay jar dem ci gouvernement bi ñu dem assemblée nationale voté loi boo xamante ni bii tarixa bu mu mën di doon wala kilifa gu mu mën di doon ku waxati ci moom lu dul noonu ñu yóbbu la rëbës mais kon mu wàññeeku. liberté d'expression lañ wax Fi ko fi saga ndey mu xex ak yow ko saga baye mu xex ak yow ah ki nu gënal sunu ndey ak sunu bay nun dañu sétan ñu di ko xalaatu xalaatunu ko kon yow Cheikh Omar Diagne na la wër ni bak nga njàkk lâche nga ab traître nga li ngay def ñima woko do ko assumer ndax fen yi nga fenoon ci bureau ba ca dar ba nga demee ba xam ni fen nga dindi nga ko boo ñemee woon lii nga bind danga koy wax murit yi di ko dégg waaye booy wax ni sëriñ Touba ku baax la sëriñ Touba àddina bi te loola mooy dëgg gëmoo ko waaye mooy dëgg sëriñ Touba dootul Serigne Touba murit yi dootul Serigne Touba Sénégal sëriñ tuuba est universel la preuve en est démb rek kërug labbe gu mag ca États-Unis moom la ay taalibeem jënd te xaalis ba ñaar téeméeri million yi ak fukk ci ñaari weer lañ ko dajale taalibe cheikh ya fa nekk dugal ci seenu ñaq yow mi nga xamante ni bii fa nga wax ni fa nga bokk jëralu la un franc doo ko fa def lammiñ wuree nga yor di xaste ku jóg nga ni franc maçon la jóg di dal ci kaw murid bokk yi lii daal laa ni woon dinaa ko wax li ma ci jub nag mooy wax leen kan mooy Cheikh Omar Diagne lâche la traître la jaam la boo xamante ni bii ca sunu maam Adama ak Awa ba nëgg ni libre te du mas a ndax yenn yi jikkoy jaam la asgor buy buy wax la muy wax daf koy assume mu jaralal ko bakkanam waaye booy wax li ñuy dégg wax lu neex booy bind bind lu ñaaw loolu ab traître ab lâche rek moo koy def kon bo bëgg ray naan professeur cheikh omar diagne do professeur darah, dara li dal la amoon ci lol dama ni won faww ma wax ko ndax ñamu doon wax ci mbiru wir rek ñamu doon song mam isa Gueye cheikh mamadou muntaha ko tan mu bok ci jangale xam-xam ci jumaay masalikul jinan Diop boko fekke fekkee taverne kër sëñ Saliou du sa morom ci ben wet bu dee diplôme mo lako eppele mo la dak jang gën la doon jambar ndax mom limi wax daf koy assumer mustapha Diop mohamed mustapha Diop du wax le ba fi jaar ci souf di bind lu wuteeg ak lam wax yow nak ngay def parce que lâche nga ñi ma wo fay waxi nopi lamay wax daf koy wax ñepp di deg waye du wax le nar lii loolu nag yëfi jaam la rek te yow jaam nga boo xamante ni bii mosoo libre te li des ci sa dund doo libre maa ko wax ndax jaam lan la jikko jikko la kenn jaayatul jaam mais jikko yu ñaaw jaam ko yor yow jikko ju ñaaw nga yor ab tooñkat nga ku fekk mbooloo ñoo xamante ni bii ku la ci ëf nga naaw nga wax leen li nga leen wax di leen traité de con jàpp ki ñu yaakaar wax ni bokkul ci góor yàlla yi jigewu leen sax yaa mën a fen waaye nag doxal rek mbokk yi daal maa ngi jéglu waaye lii laa ni woon faw faw ma wax ko ak nit ku bon kii franc-maçon bii dóoralu ma ko moo ko wax moo ca géeju bokk ca moo tax mu sañ caa wax su ko waxuloon du ma ko ko wax fen yi moom da ko fen ba ñëpp teg ci seen bët mu daw ndax musta dégg benn murit bu ni El Hadji Omar Fouti ak Euh, Cheikh Ibrahima ñas dañ leen a woon bureau ba ca Ndar moo ko créé dem ba ca biir mu daw naa fekk la nday ndax day wax lee bind lee kon lii laa ni woon danaa ko yëkkati rek ndax moom dañu koo seetaan ku mu neex mu dal ci ku neex mu dal ci sa kaw waaye defe naa ni lii de boo ci génnee incha allah rabbi dootoo dal ci kaw kenn maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen